pour ñi nga xamante ni peut-être dina leen inspiré wala mu fekkoon ni am nañ talent ci lu mel nii wala neex na leen ñu mën ko dem jàngi mën ci créer chaîne YouTube mu nekk chaîne YouTube yi am chaîne YouTube yu dox la te dinañ ko pour prouver après incha allah balaa vidéo bi di jeex dinañ leen wax lu tax defar façon chaîne yu mel nii am solo. waa ñi seetaan vidéo ba njeex danañ leen wan yeneen exemple yu ñu ko mën a xame comme ça dinañ mën a sax defal seen bopp ay recherche ci loolu voilà euh, chaîne time nag ñu ngi ñëw ci euh, IG Tunes IG Tunes wala Ook Tunes moo xam nu ñu ko mën di waxee mais mu ngi nii IG Tunes voilà muy loo xam dafay yëngatu ci wàllum desin animé voilà léegi nag am na particularité particularité mooy lan mooy euh, chaîne yu bëri dañuy def dessin animé mais du ñu am du nekk genre série dañuy def rek euh, dessin animé yoo xam ne benn film bu nekk ak moroom duñ jotee dara bien suir mën nga def ay ay ay ay chaînes yoo xam ni épisodes yi duñ jotee dara ci événement yi ñuy joué waaye bi particularité mooy dafa def benn dafa créer benn personnage personnage bi mu créé mooy logo bii mu def ci kanamu chaîne bi moo nekkaan ni ci li nga xam ne moom mooy euh, intro bi léegi mu nekk benn personnage bi mu ko créer nag léegi personnage bi moom léegi mooy animé li nga xam mooy épisode yëpp épisode bu nekk nag ñu indi si histoire boo xam ni moom la ci war a jouer comprendre nga ce qui fait que bi dafay mel acteur bu nit ñi di suivre c'est très important loolu voilà euh, ba pare nekk comédie bu neex nag lay def tamit voilà boo xoolee chaîne bi euh, accueil bi moom vraiment defar na ko defar bu baax voilà xam naa dinañu après joxe ay conseils ci tibb vidéo yi mais ñu ñëw ci présentation bi chaîne bi ci defar bi defar bi jaar na yoon voilà li ñu doon wax ci lien ci vidéo ma dugal sànq nga lien bi ko defar promotion mooy lien Instagram il paraît sax moom dong la dugal voilà def na intro gis nga euh, indi na ñett playlist playlist vidéo comme ni ñu ko waxee ci vidéo bi ñu dugal sànq ak euh, vidéo populaire ak li nga xamante ne moom mooy euh, show yi par défaut bii playlist ak playlist bi YouTube ñoo koy créé voilà playlist populaire moom mu defar ko ñëw dugal ko mu nekk ñetti playlist accueil bi daal di animé boo xoolee même lu am solo même ay vidéo show tam ay vidéo boppam la disons ñu bëri des fois dañuy am chaîne di ci dugal ay vidéo mais show ñu jëf dugal ay vidéo jàmbur di ko si dugal waaw mais day defar ay show boppam te loolu c'est très intéressant euh, mu nekk chaîne boo xam ne chaîne bu mag la nag parce que mi ngi 1 euh, million boo xoolee 90 mille ay quelque abonnés voilà mi ngi nii. te lu mu am deux cent quarante vidéo lan moo ko mën a may loolu nga am deux cent quarante vidéo kase mën a romb un million abonné parce que li muy def dafa neex ba pare intéressé nañ ñi nga xam ni ñoo koy seetaan ku seetaan benn wala ñaari épisode rek da ngay bëgg a pour bu dugalatee nga yëg ko loolu moo tax voilà de façon chaîne yi ngeen bàyyi xel chaîne yu dox la léegi nag section vidéo du jar mën nañ ko cliquer mais du jar ñu fi ñëw parce que vidéo yi rek ñoo fi ran boobu ngay défilé dem ci fi mu commencé vidéo bi mu njëkk a dugal da ngay wàcc ba ci suuf rek voilà wala nga ñëw fii nga def euh, les plus anciennes vidéo yi jiitu day inverse affaire bi par exemple tey fii lañ nekk par défaut les plus récentes vidéo bi moo mujjee dugg bi moo stop bi moo stop ba ba ngay défilé ba ba ngay egg ci suuf bi njëkk dugg voilà su fekkee danga def nii nag les plus anciennes contraire bi ngay def vidéo ba njëkk dugg mooy féete kaw bii mujjee dugg féete suuf voilà su ñu ko cliquer fii contraire bi koy defal su fekkee doo nekk di défilé jëm suuf mais fii ngay ñëw gis ni vidéo bi njëkk dugg 5 ans la moo ngi nii gisoo voilà personnage ba mu créé woon 5 ginnaaw même personnage mooy animé léegi série yi ba léegi comprendre nga voilà léegi bu ñu def vidéo populaire. moo lay indil vidéo yi ëpp vie par nombre de vie nag lay sélectionné bi ëpp vie mooy nekk fii bis topp topp si bis topp topp si vidéo bi ëpp vie ji nga 7 millions 100 mille vie am na ko bii ji nga 6 millions 900 5 millions 200 4 millions 500 et cetera lu muy tekk mooy tekki li muy def neex na nit ñu bari ñu ngi koy seetaan voilà léegi bu ñu ñëwee fii mooy section 11 chaude yi la voilà comme li ngeen ko xamee gis nga bu ñëwee fii direct peut-être deful direct waaw parce que seen i bëri lu ñuy def direct playlist playlist yi nga xam ne créé na ko mi ngi nii waaye yu su bëri def ko ci accueil bi euh, show bi mi ngi ci accueil bi bii nekkul ci accueil bii nekkul accueil ak bii ak bii yi def ci benn accueil da leen bàyyi fii section playlist. communauté nga xool ko day partager communauté bi mu mujjee partager treize jours la def xaw na yàgg itam treize jours voilà te diggante bi dugal na fi ay vidéo parce que bu ñu section vidéo vidéo bi bi ñu def euh, plus récente vidéo bi trois jours la voilà. bii 10 jours bii 13 jours kon vidéo bii la mujjee dugal communauté ñaari yi partagé wu leen communauté te c'est très important nag que ku yor chaîne YouTube vidéo boo dugal minimum loo yàkkamti yàkkamti te mënoo defar par exemple photo xam nga partage communauté nag li ci gën mooy nga partager ni image bu carré soo paree nga def moom sa yokkul lien nga def lien vidéo bi nga boole ko ci comprendre day defal promotion vidéo bi soo ko mënul parce que da ngaa yàkkamti jël lien vidéo bi rek nga partager ko dina ñëw comme ci euh, section communauté waaw ñu bàyyi xel Euh, chaîne moom taxul moom importance booy booy defal promotion yeneen chaîne la à propos résumé na fii tuuti ci li nga xam ne moom lay liggéey euh, ci li nga xamante ne mooy euh, chaîne bi pour ku dugg nga xam exactement si lan lay def voilà nee na tamit Instagram like yi TikTok et cetera mais lien Instagram bi rek la defal promotion fii voilà ku ko bëgg a contacter am na email bu mu joxe fii mun nga cliquer fii afficher soo cliquer Google dem ku bëgg xool ba xam nekkul programme moo ko cliquer ba xam nit koy cliquer mun la fii. soo ko coché mun la c'est bon léegi defal envoyé nga def envoyé mu bindal la euh, email bi nga xam ne ku ko bëgg a contacter ci ngay jaar email bi soo ko bëggee contacter chaîne bi pays bi mu ñu defal mi ngi nii nee na Nigéria la nekk voilà. boo xoolee actif depuis 2 euh, mars 2018 lañ créé chaîne bi voilà am na bannière boo xam ne tam illustré na li nga xam ne moom la chaîne bi di def voilà macha allah kon lu ñu tekk mooy rafet na voilà chaîne bi daal jekk na léegi balaa ñu ñëw nag ci conseil yi nga xam dinañ ko si joxee pour ku ko bëgg a def. ñu dem copier turu bi dem fi nga xamante ne mooy social blade pour xool bu ñu cliquer fii voilà envoyé social blade génneel nañu seen bi lu mu ñu waxal parce que ñun toujours ci revenu yi la ñuy dem pour ñi nga xam dañoo bëgg copier chaîne bi ci ci sonn ñu xam ñaatal ñaata moo leen di xaar bu ñu demee ba egg fi waaj egg voilà <laughs> léegi ci dem ba waaj fi mu egg euh, li lay xaar euh, mooy chaque weer lu mu tuuti tuuti mun nga gagné sept cent quatre-vingt-douze dollars su dee vie ngay am ñu ngi koy seetaan ay dëkk yu mel ni ay Sénégal ak dëkk yu mel noonu waa dañ ci am sept cent quatre-vingt-douze dollars su dee nag euh, vie ngay am par exemple tey ñu ngi ko doon seetaane États-Unis kott di nga mën a am ba douze mille dollars. su dee nag daa jaxase nag mun ngaa ñëw moom seen bi ba ay 3000 dollars peut-être par weer voilà parce que am na ñuy seetaan FA am naa ñëpp ñu koy seetaan peut-être Nigéria la ñuy nekk ah Nigéria dëkk la boo xam ne dëkk développé la voilà kon revenu na a am xam naa dinañ am moom benn jour boo xam ne dañ koy defal vidéo boppam parce que war nga kaa comprendre parce que am na information yu am am solo lu ñuy apporter voilà benn rek suñu leen ciy jox tey sànq xam maa ngi leen di wax euh, si wala nañ xaar dem expliquer avantage chaîne bi soo ko ñëwaat fii am li ma leen wax ci chaîne yi ma leen wax euh, lan moo tax chaîne bi mën a dox mën a am xaalis après ñu ñëw ci mujjee ko tëjee ko voilà. ñu ñëwaat euh, ana UG tons tunes voilà mu ngi nii léegi di nga tibb vidéo yi ñu cliquer benn pour xool voilà. dégg nga personnage bi moo nekk nii voilà seetlu leen dessin yi bu baax a baax ak pose ko seetlu leen dessin yi bu baax a baax ak environnement bi c'est très important voilà xaaral ma cliquer ko ba foo xam ne sax peut-être euh, voilà voilà foo xam ni ay kër lay génn bu baax quoi voilà fii boo seetloo bu baax environnement boo xoolee nit ñi nga xam ne moom lañuy ki koy defar defar ci dessin bi nit ñoo la nit ñi si boppam dafay dafa inspiré wu ci waa Nigéria pour defar perso personnage yi nga xam ñoom ñooy joué euh, série yi ba pare décor bi tamit dafay dafay dafay dafay inspiré wu tam ci décor foofu comme ci village yeeg wala quartier quartier kii yeeg yooyu voilà comprendre nga. lii nag euh, mooy différence su maanaam euh, programme yi nga xamante ni yow yaay defaral sa bopp ak Plotagon Plotagon bien sûr baax na trop ci koo xamante ni design mënoo ko 2D ak yooyu trois d yi aayoo si maanaam Plotagon dina la arranger mais limitam mooy yow nit ki nga def ko ba mu 100 pour cent ni nga bëgg loolu Plotagon du la ko may Plotagon option yi ci nekk rek nga mën a def option parce que. programmé wuñ ci maanaam décoru Afrique programmé wuñ ci ay nitu Afrique dëggantaan programme ay nitu ñuul mais ay africain laa bëgg wax yow nag sooy defal sa bopp design yi nga xam ne yow yaay des conception bi yaa koy defal sa bopp da ngay am possibilité maanaam def ko ni nga ko bëggee bu dee dangay def design pour Sénégal nga def ko mu sénégalais we décor bi nekk ay kër yi Sénégal comprendre nga nit ñi ko leen ku xool dessin bi xam ni sénégalais bu lii Sénégal la te loolu c'est important voilà moo tax nag nga jàng euh, ba man li nga xam ne mooy art graphique yi mën a defar ay euh, dessin animé 2D da am solo trop voilà ku ko bëgg def euh, genre scène bi loolu laa lay conseillé am nga ci projet boo xam ni projet bu sérieux la xam nga liggéey boo xam ne mën nga ci gagné 1000 dollars 2000 dollars mille dollars par weer nekkul fo nekkul passe temps mi ngi mel ni footballu léegi bi rek footballu léegi bokkul ak match si dimanche waaw Ronaldo mële ak Sadio Mané ca Arabie Saoudite du mat si dimanche de <laughs> liggéey bi ay milliards lañ fay gagné dañuy liggéey voilà dimanche na gars yi daje terrain bi di football dañuy tàngal seen yaram di fo te pourtant football football la rek mais ñi dañuy fo ñee dañuy liggéey dessin animé dem noonu la yow am na ñu siy dessin di fo mais danga koy jël def ko liggéey surtout ñi nga xam ne dañoo passionné ci affaire u art graphique passionné ci affaire u dessin passionné ci affaire u dessin te am ci talent mun nañ koo jël talent boobu. yow nga doon xam doonoo am studio bu la jël pour nga produire li nga mooy sa dessin animé pour mën ko yóbbu si télévision et cetera amooy sponsor léegi YouTube permettre na la nga mën a toog sa kër sa talent boobu nga am sa ordinateur sa connexion internet nga développer sa talent boobu defar say scénario defar say film ba mu normal nga koy dugal ay biir YouTube partager ko ak nit ñi YouTube à moom sponsorise sa ay vidéo maanaam di jàllale ay publicité di la fay nga mën cee gagné minimum ba egg ay 1000 2000 mille dollars loolu yaakaar naa ku ko jël au sérieux di nga ci gis sa bopp boo ko dawalee benn at ñaari at respecté ko sérieusement dina nekk sa liggéey plein temps comprendre nga nga nekk sa propre patron voilà ñi nga xam ñëpp am nañ ci talent am nañ ci don wala am nañ ci passion mun nañ ci lancer wu voilà ñi nga xam tam bëgg nañ ko te mënuñu ko bëgg nañ dessin neex na leen wala liggéey bi c'est très simple lépp loo bëgg a liggéey ci àdduna am na ñu ko maîtriser di ko jàngale demal nga jàng ko voilà ay nit a ko defar rek lii ay nit a ko defar da ngay dem jàng ko pro euh, dessin animé de d la nga dem jàng ko voilà animation rek la animation ngay jàng. am na yu gën a sophistiqué 3D et cetera yeneen yu nga am yooyu day mel nii comme kii mais yooyu mooy gën a compliqué bu la gën a sophistiqué moo la gën a compliqué mais bii bu moo ci gën a basique gën a simple neex na mën comprendre nga boo ko jàngee di ko def mu ngi nii yaa ngay liggéeyal sa bopp di ci gañe xaalis yaakaar naa c'est pas compliqué voilà voilà li mooy 2D yi yeneen yi ñu doon wax euh, yu polotogone yi moo nekk comme genre bi voilà comme Pabzo wala ay euh, Ibu Solar Ibu National voilà yooy yëpp ay polotogone la mu ngi nii personnage yi ñu la jox rek nga mën a am quoi mënoo koo def ni nga bëgg waa comprendre nga mënoo jël nit ñi def leen def leen def leen yow ni nga ko bëggee 100 pour cent parce que dafay décor bi tam des fois décor yi ñu lay indi duñu sóoraale des fois dëkku africain ci décor yi ñuy créé décor yi si ginnaaw yëpp yaa koy defar voilà lii ay logiciel logiciel Plotagon la wala application Plotagon lañ koy defaree voilà bokkul nag ak euh, comme logo comédie logo comédie comme scène bi ñu wane sànq tam même soo lay def bii tamit seen bu scène bu xaw a yàgg la voilà gis nga gis nga te gis nga olof lay wax bii yaa ngi dégg baax de <laughs> du ay léeb ak lippoon de logo comédie yaa ngi dégg ma cliquer nga déglu nuroo nga ak Sokola de voilà gis nga bii kii koy defal c'est juste sénégalais la parce que yaa ngi gis olof lay wax comprendre nga c'est pas compliqué deux de ngay jàng ba maîtriser ko li ci des ay scénario la yu am solo yooyu joué voilà jeex na léegi nag euh, ku ko bëgg a jàng tam mu ngi ko jàng ci YouTube bi ay nit ñi ngi fiy jàngale nu ñuy defay dessin 2D yi voilà mun nga dem ci am ci professionnel boo xam ne mën na ko mu jàngal la ko voilà ku mel ni Mor Maada Mor Maada professionnel la ci li yor na tam chaîne euh, boo ko recherché di nga ko gis yi comme mi lay def rek moom tam en la koy def voilà mais chaîne yu dox la daal ci ku ko jël au sérieux ñu bëri nag euh, malheureusement dañu nekk ci YouTube bi di ko jàppe ay fo voilà yor mu nga yor chaîne am ñoom dañuy créer chaîne sax di ko jàpp ay fo di jël n'importe quoi di ci dugal bu teyee ñu démonétiser suba nga monétiser waat ginnaaw suba liggéey boo fekkee yaa commencé gagner cent mille francs par weer kott kott boo ko jëlul au sérieux man xamatuma lan ngay jël au sérieux quoi voilà parce que li indi cent mille francs yi mooy indi un million mooy indi deux millions mooy indi trois millions aussi simple que ça voilà léegi nag ñu tëjee ko dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, social blade bu ñu nee social blade lu ma leen bëggoon wax mooy seen scène bi yaa nga gis ci affaire ay dessin animé lay yëngatu léegi ñu ñëw euh, fan lañ jëm ñu ñëw fii voilà top list ma cliquer top list su ma cliquer top list mu ñëw fii YouTube popular country maanaam. Euh, ay chaînes YouTube yu gën a siiw ci ay réew ma ñëw fii top deux cent cinquante maanaam chaînes YouTube yoo xam ni États-Unis lañ nekk voilà noonu su ma ko mën a ci olof noonu la maanaam top la maanaam deux cent cinquante chaînes YouTube yi gën a fës États-Unis ñu xool yan la voilà bindal nañu fii deux cent cinquante yi gën a fës euh, Royaume-Uni muy Angleterre Kingdom United Kingdom muy euh, Royaume-Uni muy Angleterre fii mu defal ñu Australie fii mu defal ñu Canada fii mu defal ñu Allemagne léegi ñu dem États-Unis ñu xool cent 250 chaînes yooyu yan la bu ñu cliquer fii indil nañu chaîne bi nga xamante ni moo nekk ci kaw lan la xaaral chaîne bi nekk ci kaw jiitu parce que 10 yi rek la ñëw yaakaar na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 moo ngi nekk Cocomelon Nursi Cocomelon ñu xo ñu dem xool ko Cocomelon voilà voilà boo xoolee kooku mooloon gis nga seen YouTube la dessin animé <laughs> moom ñu koy seetaan états-unis parce que xale yi lii lañ bëgg comprendre nga xoolal dafay def maanaam euh, minimum euh, par euh, par weer minimum cent cinquante quatre mille dollars def su ñàkkee dox ba ñàkk dox quatre cent cinq jàppal bu baax de quatre cent cinquante quatre mille dollars su doxee nag su nekkee période yu dox dëgg day dem ba. sept million trois cent mille dollars juum ma lu ma lay wax de li may wax nii moom ngay dégg quatre cent cinquante quatre mille dollars presque cinq cent mille dollars comprendre nga dina am période yoo xam ne dina yéeg ba sept millions de dollars kon bu ñu ko defee à peu ñu def euh, à peu près bi daal kii ko chaîne bi dina war a mën nekkoon à peu près ay côté 4 ba 5 millions de dollars weer moom 4 millions de ba 5 millions de dollars ko mën a gagné parce que ñàkk dox ki peut-être mooy ñu calculer woon scène bi maanaam ay dëkku africain ñoo koy seetaan <laughs> loolu mooy ñàkk loolu mooy ñàkk dox gi de léegi nag fii ñu def mooy bu doxee ba 7 millions mooy ñu def scène bi vidéo yi muy dugal yëpp états xam vidéo yi mbir la mag li ci ëpp peut-être États-Unis lañ koy seetaan ay dëkk anglophone parce que ci thème ci yooyu lay yëngut mais dina am tam ñu koy seetaan ñu dëkk ci dëkk africain yooyu parce que xale yi moom bu ñu seetaan dessin animé des fois li muy wax sax du leen intéressé comprendre nga kon mën nañoo jàpp ay 3 4 ba 5 millions de dollars chaîne bi da koy gagné par weer xam nga kon c'est du c'est du sérieux voilà léegi ñu ñëw beneen chaîne bu ci def ma Euh, Dafok Boom beneen bi topp Mister Beat waaw Mister Beat moom xam ngeen ko soxla lu ñu si ñëw Coco's Toon dessin animé la tamit voilà. kon lu muy tekk dessin animé ci seen yi gën a dox ci àdduna bi la bokk bu ñu ko toppoon noonu cinq deux cent cinquante chaînes yi mu def fii yi si ëpp mun naa ne à peu près cinquante pour cent yi ci affaire xale wala dessin animé lay dem parce que loolu dafa dox. kon ñu loolu lu muy tekki mooy tibu chaîne la yoo xam ni dox na lii ñu partagé ko ak yéen bien sûr tamit fu mun nga ñëwaat tam ci social blade comme ni ñu ko xamee dinañ ci def vidéo boppam peut-être bu ñu ko temps mayee social blade ci boppam li bëri lu fi nit mën a jànge pour mu améliorer sa chaîne YouTube yeneen seen YouTube yu la mën a inspiré nit des fois dinaa mën wala mu xam loo xam ni am na ay nit ñu ciy def seen YouTube di xaalis ba moom xamul ni loolu ñu ngi ciy def seen YouTube bu gisee ko ci def seen te moom sax léeg-léeg mu dàq kooku loolu loolu dina ko inspiré pour mu mën a lancer wu ci Euh, domaine boobu kon loolu mooy mooy li nga xam ne moom moo si nekk ñu waat ci suñu chaîne tëjee ko voilà mu ngoog kon ñu tàggoo leen kon ba lundi prochain ci beneen euh, vidéo top secret lundi tey mu nekkoon g Tunes jaa ngeen jëf. Learn and follow our Facebook page to get our post notification every Friday at 8 a.m. Even if they no give you notification. Just come to our YouTube channel on Fridays, click on video and you will see our latest video there. Uh Thank you for your support of encouragement. But yeah.